asalaamaaleykum mbokk yi bismillah leen fii ci Sahel TV gannaaw gi leen nuyoo ñu ànd ak yéen ci xibaaru marax yi eh, tàmbalee xibaar yi naka tey ji juma fukki fan ak eh, juróom ci weeru octobre gi atum ñaari junne ñaar fukk ak benn amal nañu dajeb eh, jëwriñ yi nga xamante ni waxtaanee nañu ci mbir yu am solo yoo xamante ni ñëwal na wàllub gafaga réew mi jëm ci atub ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar gi ñu dëgmal. naka noonu nag waxtaanee nañu mbiru jëm ci li nga xamante ni dëppoo na ak wàllub article bu ñeen fukk ak ñett dem nag ci charte réew mi ñëwal wàllub gafag réew mi loolee nag ñu amal yokk koo xamante ni yokk nañu ko gafag réew mi gannaaw nga xamante ni atub ñaar fukk ñaari junne ak ñaar fukk benn gi ñu daal di yokk nag lu jëm ci atub ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar loolu yëpp nag euh, jëm euh, ci euh, mottali ak jëmale kanam mbébét yi nga xamante ni kilifa réew mi Mouhamadul Cheikh El Qazouani amal na ko ngir nag lépp nekk yokkute ak njëriñal réew mi. naka noonu ba tey duñu def dul ànd ak yéen ci xibaar yi xam ngeen ne nag ki nga xam ne mooy njiitu réew bu Togo moom ak njiitu réew bu Mauritanie nag amal nañu waxtaan yu am solo yoo xamante ni. Eh, jëm na eh, ci lu juddoo ci ñaari fan yi nga xamante ni kii di kilifay réew bu Togo ñëwoon na fii am tànki nemmeekook liggéey yi nga xamante ni am amaloon na ko ci réew mi naka alxamis gi nag eh, am nañu daje koo xamante ni waxtaanee nañu mbiru ñëwal mbir yu am solo jëm ci réew yi nga xamante ni ñooy réewu g cinq Sahel yi waxtaanee nag ngir xeex li nga xamante ni moom mooy mbirub terrorisme waaye it waxtaanee mbir yu am solo yoo xamante ni euh, jëm na ci njëriñal réew yi nga xamante ni euh, sax ñoom ñoo ñu wër di suñuy dëkkandoo gën nag yenn jafe yi nga xamante ni duñ koy faral di nemmeeku ci réewub Sahel yi ñu bañ ci euh, bokk loolee nag doon loo xamante ne ndig ndimbal gu am solo lay jural réewub Sahara yi ba tax nag moom njiitu jëwriñ yi waxtaanee nañu sax li nga xamante ni Eh, jëm na eh, ci eh, lii di Covid 19 mbas mi nag gis na nañu jafe-jafe ki nga xamante ni teg nag ci réew Afrique yi. waaye it wax na it sax jëmale ci li nga xamante ni moom mooy bor yi nga xamante ni réew Afrique yi am nañu ko ñu fexe daal ba dakkal bor yooyee ngir nag nu mën a jëlaat doole jëm ci wàllu koom ngoo xamante ni dina jëriñ réew Afrique yi. Euh, naka noonu ba tey ñu ànd ak yéen ci yëngutu bu am solo koo xamante ni nguur gi amal na ko mu jëm ci ndimbal koo xamante ni daañu ko dimbale lu toll ci euh, juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak ñeenti doomu aadama yoo xamante ni daanu jëriñu ci ndimbalub nguur gi ak euh, ndimbal googee nag nee nañ ñi ciy jëriñu di jigéen ñi nga xamante ni ay jafe-jafe la ñu dund jëm ci li nga xamante ni moom moo ñawal wàllub kër ak ñi nga xamante ni euh, dunu di ñi nga xamante ni ay way laagu lañu ak xale yu jigéen ñi ak sax ñi nga xamante ni it euh, dunuy euh, dund jafe-jafe yoo xamante ni daal soxla nañu ndimbal naka noonu nag lu toll ci ñaari téeméerub million ci kopparub réew mi moom la ñu génnee loolee nag di kër joriñ gu ñu dénk wàllub social ak wàllub tuut tànk ak wàllub kër ñoom nag ñoo ko bëral ni ñi si jëriñu daal dina doon ñu takku ñoo xamante ni duñ ci boole way laago yi ak ñi nga xamante ni eh, daal daal leen jàppale muy way laago yooyee eh, ba ñu daal di dakkal yalwaan ci réew mi loolee nag doon ndimbal goo xamante ni buñ leen ko jàppalee daanu xool naka la ñuy def daal ba dakkal eh, lii di yalwaan naka noonu nag ñi ciy jëriñu ba tey mu bokk ci ñi nga xamante ni moom mooy xale yu jigéen ñi nga xamante ni génn nañu ci ay tàggat yu nu amal jëm ci bërëb yi nga xamante ni eh, xale yu jigéen ñi ñu ngi leen fay tàggat ak eh, soxna yi nga xamante ni nekkoon nañu ay jabaru soldat ak eh, ñi nga xamante ni ay soldat yu retraité lañu waaye it ñi nga xamante ni yaayu ñenn ñi nga xamante ni dañuy dund ak ay laago. Euh, nag euh, noonu ba tey wax nañu it ñi nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoral seen bopp seeni kër bokk nañu ci ndimbal googee jigéen ñi nga xamante ni dund nañu ay jafe ñoom it bokk nañu ci ndimbal yooyee ñu leen di jàppale waaye euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy jigéen ñi toppatoo seen kër ñoom kese amuñu ndimbalu kenn te yor seen i njaboot bi ñu juddoo ba tey ñoom it bokk nañu ci ndimbal googule naka noonu ba tey du ñuy dem fële ca hôpital national di bërëbu fajukaay gi nga xamante ni mi ngi fii ci réew mi mu am waxtaan gu am solo goo xamante ni kii di njiit ba wax naka nag ci lu ñewal wàllu uh, li nga xamante ni moom mooy uh, uh, joxe deret naka noonu nag njiitu hôpital national moom moomee di Abou Saïf Mohamedan daal dina wax nag bërëb bi nga xamante ni fa la ñuy denc deret foofu ca hôpital national ñoom nag duñu am jafe-jafe ci ñàkkum deret gu metti goo xamante ni dal na leen naka noonu sax mi ngi wax ni naka euh, biig waroon nañu opéré ñeenti nit ñoo xamante ni opéré wuñu leen ndax ñàkk deret loolu nag euh, mu doon jafe-jafe koo xamante ni euh, bërëb ba ñu ngi koy dund ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ gi ñu denk wàllu caada wàllu ndaw ñeek wàllu tàggat yaram moom it daal dina yëkkati kàddoom wax ni lu toll ci ay weer rek yu nu weesu amaloon nañu campagne gu am solo ci réew mi ndaw ñi amaloon ko nag taxawoon nag di maye deret loolee nag ngir jàppale banque bu sang bu hôpital Euh, campagne gu am solo gu ñu defoon mu tolloo woon ak bés bi nga xamante ni si lañu doon màggal euh, maye deret ci àddina bi yépp euh, doonoon fukki fan ak ñeent ci weerub soin naka noonu ba tey du ñu def lu dul ànd ak yéen ci bés bi nga xamante ni moom la ñu jagleel ci àddina bi yépp ñi nga xamante ni ñoom ñooy silmaxa yi doon bés boo xamante ni amal nañ ci taxawaay gu am solo ñawal silmaxa yi ci réew mi Euh, naka noonu nag ñu euh, waxtaanee euh, li nga xamante ni kër joriñ gu ñu dénk wàllub social wàllub kër moom nag daal dina wax ni loole dafa di bës boo xamante ni bës bu rëy la ci réew mi ñu màggal ko nag ci àddina bi yëpp di fàttali rek ni dafa doon bës bi nga xamante ni tooge woon nañu ko waxtaanee ko mu ñëwal silmaxa yi ci daje gu am solo yi nga xamante ne ñii di gëstu lu ñëwal wàllub silmaxa ci àddina bi yëpp toogoon nañu nag e, février ci atub junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ca Paris. E, waxtaanee nag bés boobee nga xamante ni moo doon fukki fan ak juróom ñu jagleel ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy waylaagu yi ngir nag ñu jàppale leen ba ñu mënal seen bopp te bañ a wéeru ci kenn. ba tey du ñu def lu dul ànd ak yéen ci kër jëwriñ gu ñu denk wàll wér-gu-yaram xam ngeen ni nag bés bu jot bi mbas mi tàmbalee ci réew mi ba tey euh, du amal bilan goo xamante ni dafa jëm ci dinu xamal ni mbas mi fu mu toll ci réew mi euh, naka noonu nag dem démb fukki fan ak ñeent ci wetu weeru octobre gi daal dinañu wax ni na nañu ñeent fukk ak benn kaayu yu yees am nañu euh, fanweer ak ñeent ñoo xamante ni wér nañu ci mbas mi am kenn koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam ñu koy ñaanal njëggalu suñu borom eh, ci bi ñu defee eh, test yi nga xamante ni toll na ci junne ak juróom-ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñett eh, loolu mooy li nga xamante ni moom moo fës jëm ci wàllu mbas mi nag démb mbokk yi jërë ngeen jëf li bokkoon na ci li fi gënoon a fës roose fi ci ay xibaar fii ci Sahel TV ñu leen ko doon dégtal ñu leen di dig daje sunu yenn jotaay xibaar jërë ngeen jëf wasalaam